ba tey nanguloo attesté de la de la de la bonne entente de la des bonnes relations mun daf ba tey yaa ngi hésité pour taxaw rassurer nit ñi si relation Macky Sall ak Amadou baax mais man je suis très pour pourquoi je suis rassuré damay gis Amadou Ba damay gis Amadou Ba waxtaan ak ñoom ma ne damay gis Amadou su ma taqalikoo ci moom dem ci Macky Sall ma ne ko maa ngi ni jógee ci Amadou Ba mais Macky Sall lan la xalaat Macky Sall ci boppam saa yu ma gisee Amadou Ba bi mu ñëwee nee naa ko gis naa Amadou Ba te xam naa moom xam na fi ma ko teg ba nga xam ne ne bu dee am na lu muy xeeb ci Macky Sall wala am na lu muy xeeb ci Amadou Ba ci loo xam ne ne bëgg na ci alliance pour ñu jàppale ko man dinaa bokk si ñu koy yëg man loolu li may leer te su Macky Sall amul confiance ci Amadou Ba lu bari lay yàq te xam naa ne yow Amadou Ba sopp nga ko ci sa biir xol kon loolu bu ko ñaan yàlla ndax ñi nga eh, eh, eh. nañu Amadou Ba te Macky tax ñoo gën a bari ci biir APR que ñi nga xam ne dañoo bëgg amalu Ba rek ndax seen relation ak Amadou Ba ça il faut le comprendre. mais pourquoi yow nga may insister naan sopp nga Amadou Ba ci biir xol. yow dama laa sopp. non man man sa càmmiñ laa man sama sa càmmiñ laa ah, sama jigéen. man ñëpp mais raison pour mais je suis sûr que. Ah. wàccoo ci arène politique bi di def meeting ni ñun. mais ci sa biir xol yenn saay da ngay xam ne nag man damay firi ay gënt. Ah xam naa ne Amadou Ba ci sa biir xol la ne. ah bon non Amadou Ba c'est quelqu'un de bien. ma moi je l'aime bien. mais mais raison pour laquelle. ah Amadou Ba est, est bien. dama sopp Macky Sall aussi Macky Sall je l'aime mais c'est très ah, bien. ak ak yeneen leaders yoo xam ne sopp naa la. mais oui Seck je l'adore. ah mais très bien. voilà donc bul ma bi nga xam ne am na fii ci biir réew mi. non balaa ñuy ñëw ci dialogue bi euh, Farba. est-ce que mu mu Macky Sall mu ngi wéy di wóolu candidat am est-ce que Macky Sall tànnul mu dem ba ci biir mu am doute. et Maimouna tànn candidature élection présidentielle lu jafe la au moment que aussi ce n'était pas facile ti vois dans la il y a des il des gens qui sont légitimes d'être candidats dans ce parti mais. su Macky Sall waxtaanee ak ñooñu dugg ci jël position bu claire APR investir Amadou Ba bennoo yëpp ànd ci quand il me parle de Macky Sall Macky Sall mii nekk président de la République moo la gën a xam li gën a neex ci nguur nekk président gën ma ko xam gën ko xam amaduba ndax Macky lañu fal ci pouvoir la génne tuuti cofal jox ko Amadou Ba nekk muy muy premier ministre du Sénégal kon nag Macky mii xam. pouvoir d'un chef de l'État xam nga loolu man mën na mën naa mën naa peut-être sentir ndax relation bi ma am ak moom mais loolu suñu borom moom rek la ko yàlla may Ablaye ab Abdou Diouf ak Léopold Sédar ñoom ñu ko nekk ñoom ñoo xam pouvoir d'être président de la République bànneex bi ci nekk ndax munoo xam mbir te nekkoo ko wala yorogoo ko ci pouvoir bi mu am nag mu tànn ci amaru Ba def ko premier ministre confiance boobu rek doyal na Amadou Ba am engagement ba faw topp si ginnaaw bu ñuy wax te yàlla tax moi j'ai dit ça le jour di congrès d'investiture Macky Sall mi mënoo ko fay bi Macky Sall bi dugg ci combat politique dans l'opposition di xeex pour jot réew mi Amadou Ba wàccul ci combat politique génnewul moyen tamit jàppale ko parce que man dama bokkoon ci tous les jours que j'ai fait mi daan fréquenter Amadou Ba direction générale des impôts et domaines ma mayoon cër boobu ci moom man loolu jamono yooyu nangu xaritu ak man day daal di jafe mais Amadou def ma jëloon teg ma ci wetam du leneen lu dul cofeel bu mu amoon ci man te nekk nit koo xam ne très simple Amadou Ba génnewul xaalis jox ma te yëguma tinuma boo xam ne mu sonn jàppalee Macky Sall ci combat am politique Macky falu bàyyi woon ko rek mu nekk directeur général des impôts domaines continuer di nguur rek nekkoon na teraanga waxuma la un secteur des impôts dem ba toll diggante ilif tous les un inspecteurs des impôts ministre des finance ministre de l'économie et des finances et du plan boobu ndombal tànk may mun a daf du cër bi ñu ndaw ci biir réew Amadou Ba tolloo woon ne dix mille francs yi ngay lekk ma koy lekk Macky Sall di ko lekk moo ko daan signé parce que dafa jëloon ba IMOA Séné IMOA yépp mu nekkoon ministre des finances moo xam ne moom moo daan signé ci biir de banque yooyu loolu du loolu du teranga ju ndaw du teraanga du ndaw déplacement buy def avion buy dem ak lépp ordre yoo xam ne ministre des finances moo koy joxe ñuy dem dama dem ba dénk ko diplomatie wu Sénégal dugal ko membre du secrétariat exécutif loolu confiance du chef de l'État moo koy def du carte du département du choix wu kenn. élection législative en mille 2017 daf ko tëdd liste du département de Dakar yooyu ndombol tànk même bu fa yamoon bu ko deful premier ministre jox na ko ca. te du leba du def ko lebaloon de parce que xam naa ci lu bari mi président dafa nawloo sénégalais bi bëgg réewam konk diw est un bon fonctionnaire de l'État koo xam ne nangu naa liggéey pour réewam da koy jël teg ko ci wetam tamit état mission la da ngay dënk kii bu jeexee mission la am nga jël ko jël keneen teg ko fu te fekk bañoo ma nga dem a dem a dem génnee ko gouvernement ngay dem di dox di dox dox dox dox ba jëmmi jamono ñëw nga xëccaar ko def ko premier ministre li ko indi Amadou Ba génn na ba ñu duggalaat ko ci gouvernement di nga ko mës a dégg mu posé ay actes yu négatif wala def réunion di ŋàññi di fàtte li bor yi nga ko lebaloon wala li ko Macky Sall mës a defal lu baax yëpp mu fàtte ko suul ko enterré ko bokkul ci ngor politique am na mais ngor aussi dafa am de nu dans notre culture sénégalaise suñu deret am na mbir yoo xam ne ngor ngor moom def ci war a des président def ko premier ministre du Sénégal patron parce que de l'administration yépp chef du gouvernement ministre yëpp yaay seen chef waxuma la nag ñi nekk ci suuf ñuy dem dama dem ba place bi ma toogoon man nekk président de la république parti bi ma yoroon jiite ko investir coalition bi nga xam ne ñoo ma jiite loon waxtaan ak ñoom ñëpp accompagnement nga nekk suñu candidat dara nga mënu koo weesu kat bu ñuy waxte yàlla tax kooku lépp ci àdduna daf ko war a daf ko war ci Macky ku ko waxul loolu yaa ngi koy nax te man Amadou li ñu ko investi ni ku ko yéenee la lool du ma bëgg mu fakkasalu benn àdduna sénégalais di ko gisee neneen parce que ñun li ñu xam ci teranga ku la lebal. mais est moom fay na naar bi xoromam. tamit ci sa appréciation. moom non mënuma la wax que xam nga loolu kan moo ko mën a wax Macky Sall mais je vois que Macky Sall mi nekk chef de l'État ba aujourd'hui il a le pouvoir de signer un décret xëy na candidature bi mbàtt bi investir na ko ba pare les candidatures xaw ma dañuy ubbi procédure wala ubbiwuñ ko il est Euh, euh, euh, confirmé comme candidat mais jusque la où je vous parle prérogative de signer un décret ça appartient au président Macky Sall ko premier ministre boo nommé amatoo ci moom confiance bu dee 9h la 9 minute mën naa dañ xam nga liy soxlawul élection wala ay concertation hmm. wala ay dialogue da ngay naan sa secretaire général bi rek comme le secrétaire général bu nit ñi dul gis mais efficace comme di Macky Sall Oumar Samba Ba da ko wax rek ne for fermal ma décret nga indi bu da rek mu publier ko mu jeex. sa ndombol tànk jeex loolu kun fa yàqul bu garaaw kon su ma su Amadou Ba toogee ba léegi nekk premier ministre di wax ci turu gouvernement waxuma la sax candidature ça veut dire que Macky am na ci moom confiance je vois pas un chef de l' état di continuer di am un premier ministre koo xam ne amatoo ci moom confiance. léegi Farba loolu laa gisul Farba.